baik sama Arjana. Beğenmedin mi bu? Maravofu. Hı? Maravofu. Çocuk. Bien sûr. Bir fotoğrafı. Fotoğrafı. Oh. Iya, iya mais mais est ce que xam nga benn affaire. góor hmm. gu ne am na seytaane mais man yaay sama seytaane. non bi mooy man duma am lu di wër ci àdduna yor taay may romb di di la fi romb di ut rabu àll yi xam nga xam nga ni poids lourd rabu àll la ah. mais loolu dañ ko décréter ci <laughs> constitution bi hmm. loolu dugg na président da koy signé <laughs> poids lourd yëpp la ñuy génne dëkk bi affaire bi tay fii la ah. man xam nga man li ma li ma bëgg li may yëg hmm. damay bëgg koo xam ne damay jékki-jékki rek fokk rek dox ak moom ñu doxal hmm, dëgg la xam nga ne yow bu ma la fobee <laughs> ba nga kii ma rek mais bébé keroog li nga def ëpp na de. Hmm. ah ëpp na. wala ma def. man keroog yaakaaroon naa ni dinaa pétard damaa ñëw fii sama dof bi di ma lambatu ma banque woon ko ginnaaw. ah bon eh yow li nga def ci affaire yi lan la. ah <laughs> lu ma la ko wax. ah non wax ma. bàyyi hmm. <laughs> <laughs> bee. Hmm. balaa ñu def dara damaa am ko wax. dama sonn si bi. dama bëgg bi bi tàkk la mu jeex. loolu de bu ñu see war a gaaw. dama bëgg daal xoolal bu ñu wooree. ma hmm. woo bàyyi ñëw ñu doxal. bu defee de dinaa kontaan. dégg ma mais ci suuf lay doon. takk moo ko nangul. takk oh. suuf. il faut nga comprendre ma yow da nga war a xam ne yow xam nga ne man mënu gëm laa signé <laughs> te dof bii nii la yàlla xam doy na. par ñu ci suuf rek. si man kii moom ne instant bi bàyyi rek moom mun a couvrir. bàyyi kii dem na ca moroomu mm. te bala mu ñëw day kii mm. kañ jaar fa jaar jaar kañ wàccal nga nii da amul solo ci laa ilaha wa tafa la lii rek na nga ma déssalon yow tafa est-ce nit nga yow yaangi xalat yow la xal dama lay expliquer et eh, merde la la amo dara loo ma yow cag nga bandi nga bado la nga traître nga yow tafa bo lekke man la bo nané man la bo solo man la ki bu dé ba dina gis nan dalay bëgg man la yow est-ce nit nga mex nak man na mën na muñ lu né sauf nga andi jigen sama kaw lal bul gaaw bul gaaw xaaral ma expliquer. ya am nga lo expliquer am nga lo expliquer dimbali ma wéem sama jam am yow déglu ma yow moom aw ma dara lu may wax ak yow ndax jeexal weesu nga topp kii nga xamante yorul lu mu lekk dañ koo yor sa ndey moom tamit fajar dug moo koy dégg xam nga lan la bëgg na nga romb ma nii caga xaraam ma tànjaay bi nii laa la wax merde amaguma dara lu may wax ak yow am nga dara loo eh, romb ma nii xaaral dama lay wax xaaral dama lay gis nga yow maa la long maa la large du ma lay dóor ba rey la si néeg te du mujj fee xaaral xaaral eh bu rey doomu jàmm jigéen jamu la xam nga ne du jamu ah yakal la ki ne maa kan la jar la laaj caam kan la jarta laaj kan la ko du tafa tafa encore waa ki ne tafa lu mu defati nga caam man dama son sam yu fi ñëwee nga waxa waxo ba ma del dama tok mais tay mënatuma parce que tafa tay ji dafa ce borne ya ngi deg man loolu mënatuma si dara tafa bu lekke man la mhm. bu nané man la mhm. bu solo man la tay bu ci mbir bi di am fitu ba xala jigen nan ñu koy bëgg man la Tapha te amul leen lu muy def lu andi jigéen sama kaw lal indi lan jigéen sa kaw lal ah Tapha mii mi ngi bëgg a ëppal nag de waaye nag ki ne kaay ñu waxante dëgg yow loolu warulaa jaaxal ji yow góor ñii rek nee naa la booy àndak ak ñoom dangay ànd ak ñoom pour xol. mais boo ànd ak ñoom ngir leneen rek nga perte yaa ngi dégg yow Tafa yàgg naa def nga koy muñal kon lii tey bu mu la jaaxal. da daan def may muñ loolu mën naa ko muñ man del doxaan del dem fu la neex déranger ma mais sama biir kër sama biir nekk xalaat permettre ma ko kenn loolu pour lan la. waa li nga wax moom dëgg la ñàkk jom weesul sa jabar génn ngay jël jigéen di ko yóbbu sa kaw lal loolu moom kenn du ci ànd ak Tafa. Tafa respecté wu ma boole si déglu ma ci mbedd lañ nekk te nit ku nekk am nga noonu yaa ngi dégg wax ji bu baax man yàgg naa joteeg sama jëkkër te yow yaa may delloo si waat kon nag lii bu mu tax mukk nit ñi xamal la yaa ngi dégg wàññi sa baat fii lu ñu mënta lijjante amul. tey maa amul dara lu ma koy suturaale tey man maa amul dara lu ma koy suturaale mais nga suturaal sa bopp. lu si am jël lu ma si am jël xam nga wax ci sax nag lan la na ma may sama baat tey ah! ma ñibbi suñu kër parce que amalu ma benn njëriñ man su ma fay dee dama fay ndax peut-être mbëggeel moo ma fa bàyyi mbëggeel moo ma fa bàyyi mais du dara loo xamante ne war na ma ko lu du sonal ma nii tey ak ma damaa Kiné ñun ban métit lañu dajul ci biir néegu sëy ah Kiné yow war nga taxaw di yëkkati sa baat naan ay may ma may ma sama baat man bii dama kaa muñaalewul caama bii muñaalewu ma ko mën naa muñal nit lu nekk sëf lii ay Kiné doxaana defal loolu mais andi jigéen sama kaw la xalaatuma ko permettre ma ko nit Kiné sëy jaamu yàlla la waxal naa ci mbedd la ñu nekk yaa ngi dégg yow dafaa yàgg naa def ngay muñ kon ba saatal sa xol nga muñ yow gisoo ma man li may daj yow est-ce que da dugg ci kër yi di defoo ko te man heure bu ma xëyee balaa maa teg sama cin damay leb dépense. lan mooy dépense dépense ah. respect da koo jiitu. ah respect da koo jiitu mais kii du respect du mbëggeel. du leen man kay maa fure sama bopp ni ma gis ngay defee du nii de. nu ma gis ngay defee nag du nii. tey de lu ma si am jël. de mën nga maa entrer ci biir wala mu la ko la ci biir du ma la nañ dem. bu ñu demee nga toog Tafa toog Tafa yabuñu. man maa amatul benn solution bu mooy trouver ak Tafa amatuma ko. soxlaatuma ko sax man dama lay laaj comme nga war a xam ne tey sës naa waaw xam naa ne sës nga moo tax man la kañ dem bu ñu demee dafaa toog nga toog ñu lijjante ko fii Sénégal lu ñu mënta lijjante amul ah weeru koor bi na la moo fi jot ay tas ak ñaan baat ah yaa ngi ma bëgg a jaaxal de